occasion bi euh, congrès bi pardon occasion le ci ñun pour ñu mën a sargal bu baax a baax a baax suñu kilifa di lépp junn le président Abdoulaye Wade wax nañ ko je pense que du ñu ci dellu si waat wax nañu jaara-jaaram wax nañu également que ci élection yi passé en 2019 ñun dañu defoon suñu congrès au CICES décidé que président Macky Sall mooy nekk suñu candidat ànd ceeg moom bëri ceeg moom xeex ceeg moom yàlla defal ñu ci ndam kon bu ñu tasee tey war nañu xool ñun kooku ñu jëloon def ko suñu candidat est-ce que la doon yaakaar ci moom gis nañ ko wala gisuñu ko xëy na gisuñu lépp mais ku waxal dëgg rek waxte yàlla tax danañ xam ni quand gis nañ ci lu bëree bëri de loo nga xam ne réalisé na ko muy ci route muy leneen ak leneen ndax damay fàttali toujours de parce que da dégg ay nit ñuy wax naan TER bi par exemple du priorité nga dégg ñu naan la BRT du priorité mais ñuy fàttali ne banque mondiale dafa def benn étude bu wane ni Sénégal chaque année dina perte cent milliards cent milliards ndax ay embouteillages yi am ci biir dëkk bi donc loolu il fallait que ñu trouver ci solution loolu bokk na ci li tax tey le président taxawal le TER fonctionné bien que ñu bëri ne nañ woon du sa a daw mi ngi daw BRT bi léegi liggéey bi sotti bokk na ci sax xëy na li tax embouteillage yi bari à Dakar mais jàpp nañu li olof di wax diggante sol mbubb ak summeeku di sol meneen fokk yaramu ne dox ci diggante bi kon gëm nañu ni liggéey bi nga xam ne président Macky Sall def na ko am na solo muy ci loolu ñu profit profité ci di gërëm bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ay doomu Sénégal lañu. ñu jox leen ay responsabilité ci réew mi ñu di ko doxal ni mu waree cité naa ci léegi AGEROUTE parce que gis ngeen en terme de route de pont échangeur yi nga xam def nañ ko ci dëkk bi cité naa ci APIX cité naa ci fu mel ni mu ak port mënu naa cité ñeneen ak ñeneen a ñeneen mais ñooñu bu ñu leen cité aussi du rek ka nekk ci bopp bi parce que bala ngeen koo xam nga ni tëll dugg sa bureau fekk fa sa secrétaire doo xam fooy tàmbalee doo xam fooy gisoo garde corps bu lay gunge nga bëgg a yóbbu courrier amoo ku la ko yóbbul kon ñooñu ñëpp bu Sénégal amee résultat bu amee succès ci un domaine bu ñu jàpp ne président rek la bu ñu jàpp ni directeur général mais ñooñu ñëpp ñoo doo def liggéey boo nga xam ne moo tax ñu mën a am résultat donc ñooñu ñëpp dañ leen di féliciter profiter ci pour féliciter également le ministère de la santé ndax ku nekk gis na ni pandémie bi bu ñëwee ci réew mi Sénégal def na ci am ci résultat yow dans le booy seet ñi ci am résultat boo nee ñaari réew ak ñetti réew xëy na da nga ci teg Sénégal donc ñu di remercier mais loolu yëpp ginnaaw bu amee ñun ñu wax ne doyul nag pour ñun Sénégal gi ñu bëgg du loolu Sénégal gi ñu bëgg mooy Sénégal gu am discipline Sénégal gi ñu bëgg mooy Sénégalum yar ak teggin Sénégal gi ñu bëgg mooy Sénégal gu nga xam ne yàq danañ ko wàññi. ñuy constaté Sénégal dama koy wax toujours jigéen ñi da ngay gis ku ñëw ni la dëkk bi dafa metti mais jigéen jalay wax dëkk bi dafa metti mbubb ma mu sol deux cent mille la jar greffage bi trois cent mille dal cent mille mu yor portable un million deux cent taxaw ni la dëkk bi dafa metti suñu problème tey bi ci jëkk mooy muy man muy sama morom kenn du def lu mën état du def lu mu mën population dañu def lu ñu bu ñu xoolee lan la ñuy dépenser par at am na ciy farata am na yu farata bu ma jëlee tabaski farata la mais jënd xaru un million du farata du farata beneen cérémonie religieuse boo ci mënti jël muy familial farata la mais dañ koy defee noonu xam ne du farata koor kori tabaski bu ñëwee ci weeru koor gi ñu nekk dañuy yaakaar ne da war a mën a économiser. mais weeru koor la dépense nga gën a metti donc nit ko nga xam ni koor korité tabaski tamxarit màggal gàmm 24 décembre 31 décembre dem màkk ak nganale ba léegi sax ngeen boole ci Saint-Valentin mais attends loolu tant que changé wuñu ko bu Sénégal taw or nga wax nit kenn du la wax dara ce que loolu jaadu na dans un pays réew mu doxe noonu fan la jëm tant amuñu le courage xoolante les yeux dans les yeux jël les mesures yi ñu war a jël faj li ñu war a faj te ñu ñu jàpp ni ñooy jiite joxe le bon exemple attention parce que borom kër bu mel ni man di fanaan àll mënoo wax sa doom ni ko lu nga guddee àll il faudrait que ñi jiite également joxe le bon exemple tant que lo parce que man tey bu ñu ma joxoon Sénégal li ma doxal ko ay route du lu ma jaaxal nag Abdoulaye tàmmale ko Macky Sall nga koy eggale amuñu problème infrastructure économie réew mi tegu na ci yoonu muy dox kon ku bëgg defar Sénégal te amuloo fitu attaqué jikko yi attaqué wu li ñuy def te waruñu ko attaqué wu ci li ñuy wax te waruñu ko wax doo jëmale Sénégal kanam donc ci combat boobu la ñuy woo ñun les Sénégalais est na réew mu toll Sénégal ak fi ñu toll ñu yokk ay nombre de députés c'est pas logique ñun nous sommes de la mouvance présidentielle te ku nekk xam na ni si s'il faut défendre le président Macky Sall s'il faut défendre le régime du ma wax ni kenn defu ci luñ ci defu mais liñ ci def kenn defu ko ci. yàlla dëgg la bëgg amul benn sénégalais ku dul ñi koy bénéficier wu koo nga xam ne tey boo ko nee dañuy yokk nombre de député mu ànd ci au contraire ñun jàpp nañ dañu war a wàññi nombre de député jàpp nañ dañu war a la liste national parce que député boo nga xam ni député boo nga xam ni man maay tëdd ci sama néeg jël sama liste ni Sofia yaay numéro un liste bi ñu dem élection législative ñëpp voté ci département ñu calculer kooku am chance su nekk député mais kooku du député du peuple député ki ko fal la loolu moo tax de Abdou Diouf à nos jours ngeen di dégg ku naan man député président la nous ne voulons pas de député du président nous voulons des députés du peuple sénégalais pour ñu am des députés du peuple sénégalais il faut que ces députés ñu fal leen à la base supprimer liste nationale dagg réew mi en circonscription électorale sans député largement suffisant pour le Sénégal ñii vingt cinq ñu fal leen sur la euh, pour les Sénégalais de l'extérieur parce que boo xoolee ñoom li ñu indi ci réew mi ci wàllu koom ci wàllu taxawaay ci wàllu diplomatie jaaruwul sax ñu leen jox quinze députés yi ñu am aujourd'hui donc war nañ ko mën a porter à vingt cinq députés les soixante quinze députés qui restent ñu découper Sénégal à soixante quinze circonscriptions électorales ku bëgg tàllalal sa loxo bu ñu demee élection ku sénégalais far ñu xam ne moom nga deuxième chose pourquoi un député war a am salaire loolu ni ma koy waxee du suñu xalaat Suzanne mii ma jàkkaarloo témoin la au premier congrès du PDS en 1976 à Kaolack dans son discours introductif ci la ko Ablaye de proposé woon ñu discuter ci ànd ci ndax ki nekk médecin ñu fal député mu tëj bureau wàcc fa blouse am ñëw Dakar ñu jox ko chambre d'hôtel te weer wi di fukk weer ak ñaar la mu ciy teew assemblée bu bare ba bari ñetti weer la su weeru dee ñu fay la salaire près de deux millions nga yor oto yor leneen ak leneen alors que mënul nga toog fa nga dëkk di continuer di faj ay malade état jox la oto c' est vrai c' est sooy déplacé wu am loo mën a déplacé dem ci biir askan wi di continuer di percevoir sa salaire de médecin boo ñëwee assemblée jàmm ba nga fay toog ñu fay la ay indemnité de session jàpp nañ ni aussi. ministre yi ñu am bëri na ministre ministres te ko ba nga xam ne benn ministre mënul jël décision parce que am na lu mu war a décider te dafa dépendre ci beneen collègue am ministère yi ñu am yëpp ay département la ñu woon collectivité locale département de collectivités locales la woon pêche benn direction la woon ainsi de direction la woon donc nous nous pensons Sénégal war na mën a revenir au maximum dans un gouvernement de quinze ministres mu nekk ay ministres forts am ay département yu am doole am ay direction yu am doole bu ko defee réew mi mën a jëm kanam région yi ñu am du ay région lu ay département parce que département wu lëmm recette am di deux cent millions mënul tabax case des tout petits bu baax donc ñun jàpp nañu ni dañoo war a am fitu def un autre découpage jëlal le Sine Saloum c'est une région Tambacounda tey tout le Bundu c'est une région la Casamance est une région la seule région de Casamance la mu am ci ressource mën na développer la Casamance mais suñ ko découper en plusieurs régions découper ko en plusieurs départements amatul njariñ parce que gis nga fii Sénégal ay département dama wax suñu am budget deux cent millions mais vous avez vu des communes nga xam ni boo déggee ñu war seen budget soixante millions comment avec soixante millions on euh, donc c'est des mesures pour ñun yoo nga war nañ ci mën a dellu si discuter ci régler ko définitivement pour que le Sénégal mën a nekk un pays émergent encore une fois frères de sœurs honorables invités maa ngi leen di gërëm di leen jéggalu ci yàggaayu waxtaan wi di leen jéggalu ci koor gi di leen jéggalu ci tàngaay wi maa ngi leen di gërëm di leen sant merci